je tiens vraiment di nuyu ñëpp ñi fi ñëw teew euh, ñi partagé moment bu nga xam ne moom neen tey moment bu fort la parce que ku neel li njaan moom kay du benn nit du ñaari nit du nit du ñett mais mbooloo la te mbooloo boobu mën a lenn lenn rek la moo ñu mën a voilà dem loo kanam xanaa mànkoo rek lu ñu sóobu rek ba faw quoi te di remercier tamit parce que xam naa ne moom kay ku si nekk bàyyi na yiiteem di ñëw def lii parce que xam naa ne yombul mobiliser nit moom kay ay surtout mbooloo mobliser mbooloo dafa yombul dafa yombul mais lii initiative bu nga xam ne moom kay dafa rafet parce que tey nuñ koy defee ni ñu bëri gis nañ ci nak mais quand même ils sont pas au au courant si uh, activité ni mais ñëw nañu participer nañ si activité bi nga xamné mom dal li nga xamné ne pour sa pour juste assainir li ñaan la di koy voilà comme nu la koy waxé rek di koy rafetal et voilà nga xamné mom pour suñu wérgu yaram la tamit lolu taf ci bokk tamit suma dernier cadeau mom kay bon kay lenn rek la rek xaram mom dal nañu jappalante rek lolu rek la ko parce que tant que loolu mooy si entre ñun jappo ngay wax non moom kay amul ben problème quoi parce que lool mom kay manko mooy yóbbu mooy yóbbuloo groupe moy mooy yóbbuloo fépp bu askan bi yeungatu ko nak mo koy euh, comment le dire mo koy lo kanam nak koy remercier di koy remercier parce que xamna ni mom kay ak du noogul la parce que li mom dan ñuko am li ñaan nak dan ñuko am nak dan ñuko am parce que day naa tamit aussi ci conscience yi la tamit parce que autant li ñaan li dan loon am parce que buñ ko daan defoon noonu pour juste pour mu am euh, un retour nga xam ne du côté financier wala di côté matériel quoi loolu noon lañ ko daan def mais lii ku si nekk daf si def voilà lu nga xam ne moom kay énergie doom def dispenser lu nga xam ne moom daal tey mënoo remercier nit ki ah, voilà sans passer par euh, comment la di Boudiaye parce que lii mu idée moo ko amee kon nag ñun daal am na lu ñu koy wax xanaa pour di koy encourager te xam naa ne que dina continuer encore parce que xam naa ne lii pas la première ça c' est pas maa ngi nuyu waa Lindiane yi fi teew pour journée bu tey bi vraiment journée dafa di journée bi nga xamante ne maa ngi leen di ne vraiment jërëjëf. parce que dafa di li nga xamante ne yombul daal comme nu ñu ko defee à Niakhlen et à Périjac noonu lañ ko defee tey mais maa ngi ciy gërëm tamit aussi mooy euh, suñu DG mooy euh, monsieur Goudiaby maa ngi ko ci remercier baax a baax te maa ngi ne waa Lindiane lii nag dafa di li nga xamante ne lu baax la doo ni day ñëw ne la am ah, ma may ma jox la xaalis wala ma jox la lii pour yow nga nar ci jóg dafa di acte bi nga xamante ne ku nekk kenn ku nekk si sa kër da ko nar a def kon setal suñu gox dafa di li nga xamante ne lu am importance si ñun la lu ñun ñëpp ñoo kii njëriñoo mooy suñu wér gu yaram muy leneen ak leneen dañ ciy nar a jóg chaque jour lañ ko nar a def waaw du toog euh, mais euh, maa ngi ne tamit euh, jeunesse bi bu ñu bu ñu nar ñu woon toog ba monsieur bi di am initiative dafa di lii nga xamante ne tout le temps dañ ko nar a def même chaque mois ou bien chaque semaine ñu def ko suñu gox dafa baax trop si suñu dund di kontaan si taxawaayu jeunesse bi euh, taxawaay ASC Jibekeel ak yeneen jeunes yu bokkul ci ASC bi ñëpp ñu sentir seen bopp si Lindiane ñu jàpp ni setal ñëpp la war maa ngi leen di sant di leen gërëm ndax yombul démb dafa bare woon ay activité waaye lu ñu guddee guddee tëdd nit ñi jóg nañu jigéen ñi bàyyi seen fóot bàyyi seen i togg xale góor yi teel yeew taxaw di xaar matériel bi bu mu ñëwee ñu engagé ko kenn laajul dërëm kenn laajul dara ndax dañoo jàpp ne lu ñuy def rek wareef la pour ñun ñëpp vraiment mu di si kontaan di si gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm tamit madame le ministre bi ñu jox matériel bi euh, yombalal ñu liggéey bi bàyyi yiteew ñëw ba fii nuy ñu won ñi moom itamit ñi mu ngi suñu ginnaaw ndax li ñuy def loolu la président bëgg li ñuy def loolu la sénégalais ñëpp bëgg mooy setal fi ñu dëkk ba feebar yi mën a wàññeeku ndax bu feebar wàññeekoo nga am loo def sa poos nga mën a faj say soxla waaye bu feebar yi baree rek yenn soxla yi dañuy daal di xaar moo tax jeunesse bi conscient de cela mag ak ndaw góor ak jigéen ñëpp dañoo bàyyi seen yitte ñëw bokk ak ñun chef de quartier bi ñu koy sant di ko gërëm ndax moom itamit jàllale na message bi ci délégué de quartier yi jël programme bi def ko programme quartier def ko programme de développement véritablement ñu siy kontaan di ko sant moom itam di sant délégué yëpp di sant maire Lindiane ak paa yi ñëpp jàpp nañ ci imam yi vraiment kontaan nañ di ñaan yàlla rek initiative yi mu gën a continuer ñu booloo jàpp ni Lindiane ñoo ko bokk liñ ciy def te muy njëriñu Lindiane rek kenn ku si nekk bu la yàlla may wér ak tan ak jot nga ñëw jàpp si ñu def ko ndax mu doon njëriñu ñëpp wasalaam